waaw euh, ni ma ko waxee démb rek euh, ci euh, programme wu Dija bi parce que man dama nekk moo xam ku nit koo xam ne ñëpp samay xarit lañ ndayaa sama mag bu jigéen ku ñuy wax Mami Guèye ki ma jàngal aar ki ma jàngal aar moo jàngal maman vulgaire aar mbërki démb bi ma langee sabar gis ngeen maa vulgaire ni mu teelee ñëw toog yëkkati alalam def ko ci man donc c'est normal arte bor fay ñuy samay rakk ñuy samay xarit donc ku ma woo daal man te fekk ma am jàmm moom dinaa ñëw incha allah ci kaw nga yëgal ma ko ngay def mhm. waaw waaw loolu mooy ku la yëg nga yëg ko ku la yëgalul bu la yëgul bu ko yëg lu la waay yëgal nga dem ci lu la waay yëgalul bu ci dem bu ñëwoon sama tànn bee te yëkkatiwul téléphone am woo ma ni ma ah mag ji man kat dañ may takk du ma ci fam ndax am naa fu la góob na waaw. d'accord euh, na ci muy sëy te euh, naa wax ni na ci man tey laa <coughs> man tey laa am 9 de mariage. yow mi tey laa am 9 ans ma koy sant yàlla mu nekk ay 100 ans nekk ay 60 ans loolu laay ñaan yàlla déggoo ma ne ko déggoo ma ne ko jeeg bee la ñëwal sëykat bee la ñëwal xoolal ci man nga sey ba dee bul déglu benn waxi noonu bul lijjanti benn waxi noonu na sa jëkkër nekk sa xarit amal complicité ak sa jëkkër bul lijjanti sa jëkkër ku muy wuyoo ku muy bàyyi bu lijjanti sa jëkkër fu muy dem ak fu muy lijjanti téléphone sey rek ba dee loolu laa ko sant. complicité su bëggee sëy dina dina ko gérer. su bëggee sëy laa wax parce que alal sëyul taar sëyul ay xaalis yi sëyul ñoo ko def suñu bopp rek waaye sëyul de mbaa xam nga loolu parce que bu xaalis ba jeexee nga daw bu taar ba jeexee nga daw bu succès bi jeexee nga daw sëy da ngay sëy te yàlla rek tax ah man boog li ne sama xol laa xam xaw ma nag li nekk ci xolu keneen te keneen ku mooy ku ñuy takk nga yëgal ma bu ma ñëwee bu ma laa lay taasu ni ko ndax gis nga man mi la ñëwal sëykat bee la ñëwal man loolu laa lay taasu

parce que man nit man soo ma yëgul yëguma la mais jox na ma cër jox na ma respect bi may def social fan yee passé dafa yëkkati xaalisam bu bari jox ma Eva solution la même chose barki démb anniversaire Ngoone Ndiaye bi ñu dajee maam bis ma bi ma gisee daf maa kott yëkkatu xaalis bu bari may ma donc dinaa ci def lu ma mën parce que ñu ngi ci doon waxtaan man ak maam Bassine ak dinañ ci def lu ñu mën parce que nag euh, dafa am yoo xamante ni kenn waru ko seetaan dafa am yenn ànd yoo xam ne kenn waru ko seetaan muy nax saay nañ jéem nag yàlla rek moo mën

parce que déggoo Sidi Diop wax déggoo Waly Seck wax Sidi Waly Seck magam la dafa jox Waly sekk cër Waly Seck il a un cœur d'or yéenewul dara lu bon Sidi it yéenewul Waly dara lu bon mais dafa li ma ko waxee démb laa ko dafa am nit ñoo xam ne ay nitu iblis lañ ay naafeq lañu te man maa ko wax ay naaw naafeq lañu nañ ma àkk si man wala ñu wax ma dara dootuñu ko dollee dafa am nit ñoo xam ne ay naafeq lañu dañuy yàq société jaruñu dékk jaruñu jox sax téléphone ñuy wax dafa am nit ñoo xamante ni ñu lu dul fitna te yàlla bëggul fitna te tooñ baaxul nit nekkal ci li nga nekk gérer li nga war a gérer après bas sa mu jeex kenn yor wërsëgu kenn yàlla rek moo yor wërsëgu kenn ku nekk tey mënumaa fexe tey ba boogaa mi du doon ku mu doon yow mënumaa fexe yow mi ba doo doon ko mënumaa lekk sama wërsëg lekk sa wërsëg su ma ko lekkee damay dee mais mais booy wax boo sa téléphone di wax na nga wax loo xamante ni day rafet mais bul wax loo xamante ni day yàq naa feq baaxul man maa ko wax naa feq baaxul maa ko wax man maa ko wax man jeeg man nag samay wax man jali muus la yàgg-yàgg boo sullee da ngay gis xet gi da lay rey te ki may waxal xam na boppam te du ma bu génnee tontu ma dégg njaajaan njaay barke Cheikhul Khadim bu ma tontoo xam ne dina dégg njaajaan njaay man maa ko wax man day te xoolal wax ci on se la vérité man je rentre il fait une heure la prochaine à